ndax nag bëgg nañoo taxawal lu toll si ñetti groupe parlementaire yoo xam ne loolee njariñ la ay calcul la ci lu jëm ci wàllum politique ndax nag bu ñu taxawalee ñetti groupe parlementaire ñu mën a participer bu baax a baax ci conférence des présidents lu mooy loolee tamit lu jëm ci wàllum avantage financier ak lu soxal wàllum temps de parole maanaam mën a amee kàddu gi lu bare bare bare su ne nag am nañu ñetti groupe parlementaire xam nga bu dee benn groupe parlementaire njiit li rek mooy am temps de parole waaye dee ñetti groupe parlementaire nga am maanaam groupe parlementaire parlementaire bu nekk kenn ki ko jiite dina am temps de parole yu bare bare bari loole nag soo ko boolee jariñ ci lu jëm ci wàllum politique ci assemblée nationale ci intercoalition yeewi wàllu yéen kaay gi di réew mi quotidien moo xëy di ñu ko xibaar yéen kaay gi di wal fajree xëy nag di ñu xibaar lan moo tax sëy biy dox diggante yeewi ak wallu sëy ba ci tas la jëmaa wal fajri yéen kaay yi nee na mën la gis nga tàqalikoo diggante wàllu ak yeewi loolee mënut a ñàkk ndax ñi nga xam ne nag ay analist politique la ña seen xel màcc jëm ci càmbar politique politique ñoom Mamadou Sy Albert ak ku ci mel ni Abdou Khadre Sanoko ñoom nag nee nañu ñi nga xam ne ñooy waa wàllu maanaam nee ma sax ñoom waa PDS maanaam taxawal seen groupe parlementaire moo gën ci lu jëm ci wàllum politique ndax na xam ngeen ne Abdoulaye Wade mën naa signaler gauche jàdd droite te nag ñi nga xam na ñuy waa coalition wàllu bu ñu fekkee coalition Yewwi def ko nag ay groupe parlementaire booloo ci seen biir leader bi Ousmane Sonko la ndax intercoalition bi bu ñu waxantee bu ñu ko tuddee rek Ousmane Sonko la ñuy tudd te loolee ci boppam baaxul sax ci Karim Wade élection présidentielle 2024 Sonko mën na leen a suula yéen kaay gi di Source A nee na nag lu jëm ci nag taxawal ay groupe parlementaire diggante Yewwi ak Wallu nee na ñu loolee waxtaanee guñu ko waaye nag Abdoulaye Wade daal maanaam ba léegi moom ma ngi ànd ci Yewwi ak Wallu wéy di doxal yéen kaay gi de la saqi di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi moo xam ci élection locale yi moo xam ci élection législative maali Malick Gakou le grand perdant Malick Gakou maanaam gis nga Malick Gakou presque sédduñu ko dara moo xam ci mairie yi la moo xam ci député yi yéen kaay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu sungeen ngeen xëyee nag dégg ñu ne leen APR maanaam tas na tas na tasar bu mu leen bett jamono ji am na ñoo xam ne dañoo mer ba maara day taali ci biir APR toog nag si seen ruqoo maanaam di xaar président ki Sall jël ay dogal ki Sall bu jëlee ay dogal taxawal ab gouvernement maanaam di ngeen dégg coow loo xamante ni ci biir APR sax da ngeen yéemoo te nag du ñàkk ay directeur ak ay ministre yoo xam ne ñooñee nag seen bopp yi danañu ko dagg danañu leen kutu Macky Sall jamono ji kan lay tabb ngir nag mu jiite gouvernement bi ak kan lay jël yóbbu ko ca assemblée nationale Macky Sall ma ngi baatarawaat carte gi yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu bu ñu waxantee dëgg nag Macky Sall ci boppam bopp bee ubbu kan la Macky Sall di tabb jiital ko ci gouvernement bi loolee ci boppam nag moo ub bopp Macky Sall bi tànn bi nag maanaam jafe na lool yombul de yombul yéen kaay gi di vox populi ñu xëy fekk a Zahra Iyane Thiam nee na opposition bi boycotté wuñu élection ACC tey de waaye askan bi la ñu boycotté tey Zahra Iyane Thiam ñi nga xam ne ñooy opposition bi maanaam askan bi intéressé wu gis nga opposition bi askanu Sénégal intéressé wu leen Zahra Iyane Thiam ne opposition bi dañoo manqué respect askan wi yéen i kaay gii di li ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition buntu bi ñoom nag nee ñu élection au conseil des collectivités territoriales ñoom bokkuñu ci ñu koy fekk fa Pape Mayel Thiam mi nga xam ne mooy premier vice président bu au conseil des collectivités territoriales moom nag ni ki démb gestion boobee nag liggéey na ko moom Pape Mayel Thiam daan nay song ñi xam ne ñooy wax ne au conseil des collectivités territoriales amul njëriñ Pape Mayel na ñooñu xamuñu lu ñuy wax ndax nag ñun lu toll si juróomi rapport yoo xam ne def nañu ko yéen kaay gi di Sud Quotidien ministre Abdoulaye Sow nee na opposition bi boycotté wuñ daw opposition bi dafa na opposition bi ñoom leer na leen leerug yàlla ne bu ñu demee ci élection yi danañu leen dóor ba maara de tali ndax ñoom sax maa yépp Abdoulaye Sow mooy waxaat yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee du ñu xibara naan ñu Abdoulaye Bathily moom nag la ñu tegoon ngir def ko a envoyé spécial bu ONU ca diwaanu libi waaye nag réew mi quotidien nee na réewum Libye Tripoli ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj waa lànk loolee la ñu def fa yéen kaay gi di libération xëy di ñu xibaar mbir mu garaaw a garaaw mu doy waar moo xam ne moo xew ca diiwaanu Parcelles Assainies unité 17 mbirum góor jigéen la ndax dafa am benn waay bu sant Diouf ak partenaire am bu sant Guèye ñoom ñaar nag ñoo doon def naka sudul noonu waaye nag seeni dëkkandoo dañoo dégg bruit bi ci biir néeg bi ay une heure du matin yéen kaay gi nee na ñaar ñooñu nga xam na ñoo nekkoon ci néeg bi doon def na ko su du noonu bi ñu leen yégee dañoo daw waaye nag police si boppam mu mujjee teg loxo kenn ki ki sant Diouf waaye nag ki sant Diouf moom nag daat nay nangu ne moom boroom ñaari tur yi la waaye tamit partenaire am yépp wax na ko waa police biir néegam nag ba ñu fa demee fekk nañu fa ay préservatif fekk nañu fa lubrifiant fekk nañu fa maquillage fekk nañu fa ay perruque ci biir chambre am yéen di Vox Populi nee na bu passé giraawaali googu nga xam ne moo xew Parcelles Assainies place bu bes yaa woo foofee tamit juróom benn xale yoo xam ne njort ñu ne ay góor jigéen lañ fukki at ak juróom ñett jàpp ñaar fukki at la ñu amee yéene kaay gi nee na ci guddik altine doon def naka su du noonu ba ñu leen fa bettee gendarme yi nga xam ne ñoo nekk ci gendarmerie bu Foire ñoo leen sauvé waaye gars yi dañu leen na doonoon dóor ba maana de tali yéene kaay gi di estaad ñu koy fekk fa nag Samuel Eto'o Fisa moom nag nee na Sadio Mané mooy le meilleur joueur du monde jamono ji